عباد الله فإن الشباب من أهم فترات ومراحل حياة الإنسان إن لم يكن أهمها لذا كان مصب اهتمام كل الحضارات الإنسانية والديانات السماوية والقرآن الكريم يحدثنا عن الشباب في مواضع متعددة تارة لبيان أهميته وأخرى للإشادة بمواقف بطولية لشبان ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الإصلاح والإيمان الصادق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظيم قيمته وجسيم خطورته فيقول في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وفي حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه اغتنم خمسا قبل خمس فصدر بقوله شبابك قبل هرمك وفي حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله فثنى بقوله شاب نشأ في طاعة الله ولنا في التاريخ الإسلامي نماذج تطبيقية رائعة لشباب صالحين قاموا بمهام كبيرة وهم في ريعان شبابهم ومن ذلك إرساله صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير إلى يثرب وهو دون ثلاثين من عمره ليكون أول سفير في الإسلام وتأميره صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو ابن سبع عشرة سنة على جيش كان فيه كبار الصحابة وكذلك تكليف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنهما بجمع القرآن كما أن لنا كذلك في الشيخ الخديم رضي الله عنه وأصحابه قدوة وأسوة حسنة حيث أعلن رضي الله عنه عن دعوته التجديدية المباركة وهو ابن ثلاثين ربيعا وأسس مدينته الفاضلة وهو في الخامسة والثلاثين وغرب إلى الغابون وهو في الثالثة والأربعين وولى أمر خلوته دار السلام لمريده الشيخ سيدي المختار وهو ابن إحدى وعشرين سنة ثم استخلف مريده الشيخ إبراهيم فات أيام غيبته المباركة وهو ابن ثلاثين كل هذا ليكون لنا في الحسبان إخواني الشباب أن هذه الفترة التي نحن نعيشها فترة جد واجتهاد وكد وتعب la hazlin wala laib ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne dafa bind doomu aadama jaarale ko ci ay jaaruwaay yu bokkut yónni ay ndaw jëm ci ñoom ndaw ñooñu mu yónni ñëpp bi mu leen di yónni mu yónni leen ñu doon ay toll ci seen jëlbeenug dund ñu di ko sant di seere ne amul benn buur ba yow jaamu bu dul moom di seere na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama di jaamam di tànneefam di soppeem ñu ngi ñaan sunu borom mu dolli xéwal ak mucc ci moom ak i saxaabaam ak i njabootam bokki jullit ak ndaw mi ngi bokk ci jamono yi ëpp solo ci dunduk doomu aadama ak i bu dul ne sax mooy jamono ji ëpp solo ci dunduk doomu adama loolu moo tax mboolem civilisation yi fi masa jaar yëpp ak giine yi rawatina yi jóge ci suñu borom yépp dañoo yittewoo ndaw ak taxawu ko alquranul karim waxtaan naag ñun ci ay barab yu bokkul yu bari ci mbirum ndaw leg léeg day wane soloom ak dayoom ak cëram leg léeg muy wane ak ay ay taxawaay njàmbaar yu am solo yoo xam ne ay ndaw yu ràññeeku taxawoon nañ ko te dara taxawut ñu taxawee ko lu may rek bëgg a jaar ci yoon wi ñu war a jaar ak bëgg defar ak lañ gëm mu dëggu ci ñoom sunu borom mi ngi ñu nett lu ci alquranul karim xisab ahlul kahf di wax ne ay ndaw lañ woon yoo xam ne ndaw ñu ràññiku lañu woon ñu gëmoon seen borom lañ te gëm gi di dëgg ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu moom it ci xadis yu bari di ñu wan dayo ak valeur bi nga xam ne ak ndaw am na ko ci hadith sayyidina muaz radiyallahu anhu yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ne ëllëg yowmal qiyaam day kenn du séq kenn du séqi benn jéego dugg àjjana wala muy dugg fenn lu dul ne suñu borom dana ko laaj ci ñeenti mbir ba mu tontu ca mu ne sunu borom dana ko laaj ak dundam ci lu mu ko jeexal lam ca teg mooy dana ko laajit ak ndawam ci lan la ko rappal buñ xoolee foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ne ak ndaw daf koo melale mu mel ne mbubb mu nit di sol moo xam ne yàgg yàgg bu yàggeek moom rek dana ko mës a summi ba moo tax suñ borom dana ko laaj ëllëg mbub moomu ba mu ko solee nan la ko rappale ba nan la tàggoog moom mu wax ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu wax ne na nga gaaw jariñu ci juróom profité ci balaa juróom a ñëw lam njëkk a tudd mooy sag ndaw balaa màggate ñëw ci xadiisu Seydina Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne ëllëg yowmal qiyaam day ba nekk ci tartar yeeg jafe-jafe yi ker du fa am lu may keroog sunu boroom te ñu bari danañ ci bëgg a dugg te duñ ci mën a dugg am na nag juróom-ñaar ñoo xam ne suñu boroom moo leen cee keralal boppam ba mu ko waxee daf ca kam njëkk a tudd kam ca teg rek mooy ndaw loo xam ne dafa gimmi rek nekk ci topp yàlla ak jaar ci yoon wi yàlla gërëm mbokk ci jaar-jaari lislaam ak taarixu lislaam wan nañu ay exemple yu bari ci ay ndaw ñoo xam ne taxaw nañ ay taxawaay yu kawe kawe kawe kawe taxawe itam ay fonction yu rëy taxaw ca taxawin wa gën a rafet jëf ca jëf ju rëy rëy yitam joo ne histoire du ko fàtte mukk bokk na ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa xam nañ ne ci jamono jim mu nekkee Makka laata muy dem diina kam fa njëkk a yabal mu jiitu ko fa ab diir muy Seydina Musab ibn Umayr jamono joojee ma ko fa yabal booba mu Musab mi ngi toll ci fanweeri at kon booba ndaw la ak responsabilité boobu li rëy rëy mag ñaa nga fa waaye boobu joxu leen ko mu la ko jox ndax moo ko mënoon a yor niki noonu it laata mu fi jóge moom yonente bi alayhi salaam xare bi mujj a takk kam ca jiitaloon ca bopp ba mu war a nekk ka jiite xare ba mooy Seydina Zayd Usaama na Zayd te booba Usaama mi ngi tollu ci fukki at ak juróom-ñaar te booba armée boobu mu ko jiital kàngami saxaaba yu bari yi ñu dégg ña nga ci biir armée boobee te Usaama moo leen jiite bi fi yonente bi alayhi salatu wasalaam bàyyi koo it Seydina Abu Bakar radiallahu anhu taxawaay bi gën a kawee bu gën a mag bi mu gën a taxawee gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy dajale alquranul karim bi mu koy def booba kàngami saxaaba yëpp a ngi fi waaye kim jiitaloon di ko taxawloo loolu mooy sayyiduna zayd ibnu thabit te booba ndaw la sëriñ tuuba radiallahu anhu itam ak ñi mu àndaloon doon leen yar ci yoonu yàlla jox nañ ñu ay bind yu mat sëkk yoo xam ne buñ delloo ci ñoom duñu réer sëriñ bi radiallahu anhu ñun ñëpp xam nañ bi mu woote yoonam mu barkeel wu tedd wi booba mi ngi toll ci fanweeri at rek la toll jamono ji muy sanc dëkkam bu tedd bee itam di Touba mi ngi toll ci fanweeri at ak juróom bi ñu koy yóbbu ci géej gi mi ngi toll ci ñeent fukki at ak ñett laata loolu dëkkam bee mu njëkk a sanc muy Daaru Salaam bi mu koy jox taalibeem ba Cheikh Sidi Muxtaar booba mi ngi toll ci ñaar fukki at ak benn bi mu fi jógee dem ci géej gi it taalibeem bi mu fi bàyyi mu wutu ko gannaawam muy maam Thierno Ibra Fati booba mi ngi toll ci fanweeri at mu wutu ko ci yoon wi loolu lépp nag bokk yi lim ñuy wan mooy ñu war a bàyyiwaat xel ñun ndaw ñi ne jamono ji ñu toll muy jamonoy ndaw jamono la joo xam ne jamonoy farlu la yitte la laaj taxawaay la laaj pas-pas itam la laaj waaye du jamono joo xam ne nit da ko war a def ci lu amul njariñ wala mu di def ci am po wala mu di ko def ci am po réew wala loo xam ne du ko jariñ ci àddunaam du ko jariñ ëllëg itam ci àllaaxiram ku ne xam na ne nag jamono toll na foofu lu bari loo xam ne ñi ngi koy tëralal ndaw ñi ci ay programme ak ay doxiin ak i tëraliin dara tax koo jóg lu may rek fab bi leen ci seen yitte ji nga xam ne ci lañ war a nekk ci lañ war a teg seen bët waxtu wu nekk gannaaw nag dayo bu kawe bu rëy boobu la ak ndaw am wàccuwaay bu kawe boobu itam la am kon ndaw ñi war nañoo am yëg-yëg ci responsabilité bu rëy bi nga xam ne sunu borom gàll na ko ci seenu loos ci jamono jooju nga xam ne ci lañ toll. war nañoo am yitte ju rëy rëy itam ci lépp lu ñuy def ak lépp lu ñuy yëngu mu doon luy defar seen tey wala mu doon luy defar seen ëllëg seen yitte yi gën a mag it war na caa jiitu lépp loo xam ne day tax ba société bi jag société bi jaar fi yoon bi war a jaar lépp loo xam ne itam day tax ba. réew mi suqaliku jëm kanam te ñu wattandiku nag bu baax a baax a baax a baax yi xoy-xoy ci seen kanam te du jur njariñ wattandiku di daw ci gannaaw ay nit ñoo xam ne seeni avenir yéen ndaw ñi ci la tabaxee ñoom seen tedd ngay tey loolu lu mat a wattandiku la war a wattandiku bu baax it topp ay nit ñoo xam ne li ëpp solo ci seenu dund wees na ba noppi tey yéen bëggoo leen bu ëllëgee boo leen tollee ci at yi ngeen am yi ñu am ngeen mel na ñoom te nag sunu borom bokk na ci aw doxinam ne mi baaxoo doxe képp koo xam ne ñeewoo ak magam waroo roy aw doxinam ndax bu ca coobareel suñu boroom duggut faw rek yéen ñaar yéenee bokk fa leen di mujj ëllëg kon loolu lu mat a bàyyi xel la bu baax réew mi nag muy population bu Sénégal ci natt yu mujj yi nga xam ne génn na ci kër yi nga xam ne ñoo koy taxaw wax nañ ne réew mi nit ñi toll nañ ci fukki million ak juróom-ñett yu tegal te biir fukki million ak juróom-ñett yu tegal fukk yaak ñett ay ndaw lañ yoo xam ne seeni at mi ngi toll ci fanweeri at wala jëm suuf loolu am na lu muy wane ndax réew moo xam ne la ëpp ca ña ko dëkkee ay ndaw lañ ñoo xam ne ñu ngi toll ci seen digg digg doole seen digg digg kattan réew moom ku ne xam na ne la muy laaj la muy soxla ci ay taxawaay dana rëy dana yaatu dana bari waaye it nag mat naa xam ne it ndaw ñu baree noonu ci am réew ba ëpp ca population ba loolu njariñ lu rëy rëy la atu la it bu rëy boo xam ne ña nga xam ne ñoo jiita réew ma buñ ko xamee te taxawee ca nañ ca war a taxawee saytoo leen nañ leen war a saytoo réew moomee menn réew du ko jiitu ci kanam menn réew du ko gën a avancé menn réew du ko gën a développé kon ñi ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci mbaaxam ak kattanam ak tabam mu def ndaw yi réew mi ñu doon ndaw ñoo xam ne dañuy xam seen responsabilité te yëg ko bokk ci ndaw ñi nga xam ne dañuy ànd ak yeewu di bàyyi xel waxtu wu nekk fi ñu war a teg seen tànk ba kenn du leen ci jële waaye wattandiku itam ba bañ a teg seen tànk fenn foo xamante ne bii ne waree su leen fa seen ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may ñu yiw àdduna ak yiw alaxira sàmmal na sunu ngëm musal ñu ci sawara may ñu fan yu gudd ak wér defal ñu jub ci sunu mbir yépp sàmmal na sunuy kilifa te ka ci jiit di Cheikh Mouhamadul Muntaqa mii nga xam ne ñëpp xam nañ ne jenn yitte la am muy diine ji ak jaami suñ borom yi suñ borom defal ko kattan ak tawfiq gën koo dimbale gën koo jàppale ba fa mu ci bëgg yegg fépp mu yegg fa ta ànd koog ñun te képp koo xam ne itam lislaam mooy sa tool suñ borom jàppale lañ sa taxawaay ya ngay taxaw toog ànd koog ña ko war a àndal الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله إذا كان لمرحلة الشباب هذه الأهمية العظمى وهذه الميزة الكبرى فإن من واجب الشبان الوعي بجسامة المسؤولية التاريخية المنوطة على عواتقهم وليحملوا هم إسعاد العاجلة والآجلة ويثقلوا كواهلهم بطموحات عالية في إصلاح العباد وتنمية البلاد ولتحذروا الهرولة وراء أناس يبنون مجدهم بمستقبلكم ومتابعة آخرين فاتت زهرة حياتهم ولا تحبون أن تكونوا غدا أمثالهم والشعب السنغالي حسب الإحصائيات الحديثة يبلغ ثمانية عشر مليون نسمة والثلاثة عشر مليون منه تتراوح أعمارهم بين الثلاثين ودونه ولا شك أن بلدا شعبه شاب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 فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها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 السلام عليكم السلام